ñu ngi suivre ci seen site internet lu tv point com comme ni ma leen ko waxee woon rek sànq ñoo ngi fii Fass ba léegi tey ñu fekk fii Papa Sow mu bëri woon nag depuis boobu gis ngeen ko fi mais nag entraînement yi ba léegi ci lool la nekk ñu ñëw li ko laaj ndax dafa jot ay proposition wala lan la parce que moroomam yëpp ñoo ngi noppalu Papa maa ngi lay nuyu. waa ñu lay fay Lamine di nuyu waa Lutte TV yëpp di nuyu monde lamb yëpp sax nag ñu ngi nuyu ñëpp quoi. bi nga bëree ba léegi yaa ngi ci yaa ngi ci nekkaat di entraîner lu waral lool. waaw ñu bon xam nga suñu métier la nekk aussi quoi lu mu dee dee dee ngay def benn séance par jour di yee yaram bi moo gën nga toog mu noppul noonu boo commencé waatee day day doy waar quoi day métti trop quoi. yee yaram bi contact ci la bokk. waaw mooy foo contact tuuti tuuti rek tuuti tuuti rek seen bu nekk boo amee ñaari yoon contact baax na waaw boo dawee jee baax na boo def tuuti musculation en tout cas bul toog daal bàyyeeku quoi waaw te ñun xam ma dem nga xaw a pataar tuuti quoi. laa ñoo ñëw ci loolu Bara Ndiaye dafa war a bëri le 25 moom ak Diatlé. combat boobu noo ko gisee. waa combat bu neex la combat bu jaadu la surtout si Baara Ndiaye sax Baara Ndiaye combat bi moom dañ koy ñaar yàlla defal ko ci ndam ndax combat la boo xamante ne nii bu ko ci yàlla defee sutura làmbam day ubbeeku ndax dafa bokk ci làmb Baara Ndiaye boo gisee dayo bi nu mu toll ak am na lu mu mën nga xamante ni kii bu ko yàlla dimbalee ci bunt bi rek mu ubbi ko rek incha allahu rabbi làmb dina ubbeeku quoi di ko ndam quoi. mais dañ ni technicien la kon Baara Ndiaye lan la war a moytu ci moom. waaw Jet Li la mën na bëre mën na xeex. dafa progressé trop ci xeex mais Baara Ndiaye tamit bon ñu koy wax yi duñ ko mën a wax ci réseaux sociaux yi mu génn adversaire am jël ay matuwaayam mais lu liñ koy wax ñu ngi koy wax ci suuf Baara Ndiaye am na lu mu moom ci combat bi bu ko rek yàlla mën na ko dimbali quoi. Fooru Jalli xam nga ko. jël li mën na bëre mën na bëre. tànk lan la gën a mën ci bëre. dina bëre dina bëre si tànk yi dina bëre ci loxo yi te dina xeex léegi gis naa ne mu ngi xeex xeex bu jaar yoon mi ngi bëre tànk mi ngi bëre ci loxo yi waaw mën na bëre quoi mbër la quoi. mais Baara Ndiaye liggéeyam doy na la. waaw doy na ma dafa simee ko rek ma ne ko vraiment Baara Ndiaye mu ne waaw mu ne ko liggéey nga ndax Baara Ndiaye dafa jëloon graisse mais instant bi ni yaram bi dafa wow koŋ xam ne kii liggéey na quoi. <laughs> léegi yow ma laaj la tamit ndax bi nga bëree ak léegi jot nga ay proposition wala jotagoo dara. waaw loolu mooy li leen wax rek proposition xëy na du ci yow quoi gars yi dinañ yëndu rek génnaat ndax laa ma ci bon dafa laajaat tuuti organisation bu ndaw bu ndaw a ndaw a ndaw boo xamante ne ko dafa ndax laa ma bëri na coow tax sóobuwoon à 100 pour cent mais heure bi daan fekk daaw heure bi combat yi taxaw commencé taxaw benn benn ñaar ñaar waaw. su ma la laajoon papa kan la jàpp ne moom la ko làmb gën a booleel kan la may wax. waaw ku ma làmb boole a ko ci làmb ñu ngi ci làmb ji di bëre ñàkkagum dara ñu ngi ci làmb ji di bëre mais wax dëgg yàlla moom tey jii toll naan ay jox ma diw jox ma diw moom làmb ji war a bëre xamante ne diw nga bëre rek xamal ni ko nga war a bëre ndax amateur yi ñooñu gën a xam combat yi jaadu ñooñu gën a xam combat yi neex amateur yi combat bi ñu gën a wax instant bi sa combat ak guy gi la nañ boobu moo gën a jaadu. waaw xëy na kon looloo jaadu guy combat bu jaadu la pour ñu bëri moom combat bu jaadu la mais c'est pas forcé man adversaire yi bëri nañ fi. suma kanam adversaire yi bëri man maa après ëpp si làmb ji man tamit man tamit laaj naa guy gi sa combat ak Papa Sow amateur yi ñu ngi koy wax mu ni bëggul boobu. waaw moom waaw moom loolu la moom la intéressé quoi moom la intéressé man wóoruma ko man wóoruma guy gi eh, wóoruma guy mais da di ay combat yu jaadu rek man toujours rek laa wax xamante ne bu la ko waxee benn yoon ñaar foo mën teg sa bët ak foo mënti xaar looloo jaadu bul nax sa bopp waaw. dem na ba sax ni ma Gris Bordeaux laa soxla wala Ama Baldé bu dul ñooñu du ma bëri. droit am na ci droit am na ci droit man man du ma utal du kenn adversaire benn mbër ndax du ma dirigeant benn mbër du bokk maag écurie benn mbër écurie Fass laa bokk kon su may conseillé mbëru écurie Fass laay conseillé waaw man daal xam naa ne daal lu amateur yi wax benn yoon ñaari wala reporter yi looloo jaadu man ci loolu laay wax. amateur yi tamit wax nañ beneen combat mais combat bu dafa mel ni bëggoo ko muy sa combat ak Sa Thiès. waaw combat yëpp combat la ndax am na benn interview bu ma mës a def mais ci presse écrite xam nga bind dafa garaaw mais bi ma waxee rek gis naa Sa Thiès na sax xaw na gis boppam non non Sa Thiès euh, c'est un champion confirmé loolu kenn waxatul champion Sa Thiès mais da di làmb rek am nga droit tànn say adversaire ne kii ma gën su ma ko amul kii su ma ko amul kii su ko amul kii mais Sa Thiès c'est booy bu caractère booy bu cool la quoi. lan moo tax quatrième position. mais da ngay gis ñu la gënal tey jii combat Papa Sow Boy Niang combat bu neex la Tapha Tine Papa Sow bu neex la Papa Sow bu neex la Papa Sow Sa Thiès it combat bu neex la fu nu laa ko waxee rek nu laa ko waxee rek. tudd nga Tapha Tine Tapha Tine tamit damaa laaj Tapha Gueye mu ne bu ñu ko proposé Papa Sow Papa jël combat bi yow ñeme ngaa jël avance Tapha Tine. waaw ñun waaye làmb ji ku nekk am nga loo am ci làmb boo ko utiliser rek am dara. combat bu ñu proposé te mu jaar yoon ñu fay la ko jaral dañuy bëri. mais Tapha géant la papa. ah parce que lan la. bu nekkee mbër la jaar rek ñaari mbëree bëre ñaari mbëree bëre. damaa gisul ndaama daan papa parce que Tapha Tine. gisoo daan Tapha ah mais la ah. Yékini Junior ñaari yoon la la la kii ak de benn bi da koo buddi benn bi mbot. loolu la yàlla dogal ne ko loolu la yàlla dogal. sama waay la nag Yékini Junior. waaw ah, loolu la loolu la yàlla dogal seen combat xëy na noonu la xëy na ku jumul ku doo daanu ku dafa def ay erreur ci combat bi rek ñaari combat yëpp dafa ay erreur yoo xamante ne nii erreur du la pardonné combat boo defee erreur rek adversaire da ko exploité. mais est gisoo jël beneen adversaire ba ba ba am ba nekkaat victoire soo ko jël ku mel Tapha Tine. lu jaadu la lu jaadu la boo amee beneen combat dafa gën ba fi sa nga jël ko waaw waaw. waaw Balla Gaye Modou Lo taxaw na de léegi. waaw Balla Gaye bu combat bu jaadu la combat bu neex la combat bu yëkkati yëkkati làmbulaat combat la boo xamante ne daal man balaa ma wax dara li may njëkk wax mooy ñoom ñaar ñoom dafa am lu yàlla dogal si ñoom ñaar mbëri bëri na trop. mille 000 licenciés xaw ma 8 mille bu yàlla dogalee ñaar ñi ku tudd tudd leen lu ñuy wax boole leen ci dañoo xam ne ñoom ñoo war a sukkali làmb pour man sama xalaat lay de. ñu war a sukk làmb ci leen bokk moo tax damay ñaan rek ñoom ñaari écrit yëpp durant combat bi yëpp nañu wane exemple bu rafet nañ ko def ci nu mu gën a rafetee nu mu gën a tegginee ba ëllëg avant combat bi da nga sponsor yi demoon yëpp dinañ ñëwaat ci mais si ñoom ñaar la dépendre te di ñaan Modou yàlla may ko ci ndam lu gaaw lu sedd lu rëy a rëy rëy nag nee moom fa mu ko jaaroon fa la ko jaaraat ba jox na ko 10 secondes. 10 secondes waaw waaw mais nag bon li wax ma Balla champion la champion la boo xamante ni ku ko respecté laa. moom ku ma respecté la xam naa ko man ko respecté trop laa ku ko naw laa tamit waaye ah jamono day dox daal jamono day dox jamono day dox. jamono day dox maanaam dox na ba fayu jot. non dama day dox rek day dox Balla Balla non Balla champ Balla kañ champion la Balla ko gis combat bu mujjee bëre détermination fulla ak fayda rek gis combat bu métti lañ bëre ñaari adversaires yi combat la Balla Gaye mujjee bëre fa mu newoon jugu fa. wax dëgg combat bu métti lañ bëre ñaar ñu bëre ba mu temps bi jeex tàkk. mooy am na lu nu am man du ma nangu mukk baala Gaye nangam nangam nangam li may wax mooy toujours rek Modou yokkal say entraînement ndax it ba combat buy jaral baala la. gars yi ne nañ Modou instant moo gën a taxaw moo gën a pare combat bi buñ ko ko bëri woon Balla amu ci sens. waaw li moo gën a taxaw gënul taxaw man man li may wax Modou daal mooy chaque jour na nekk ci li mu war a nekk na nekk ci li mu war a nekk naam mi ngi ci mais na gën a yokk rek loolu laa ko wax na yokk cere door a ñeex. looy moytuloo Modou ci Balla. non loolu bu ñu toogee dina ko moytu loolu dinaa ko wax loolu nii su ma sañoon ñu def lii su ma sañoon ñu def lii. te ah, Balla day xeex léegi de gis nga dernier combat. Ah, waaw waaw moo tax ma ne la bu ñu demee ba toog ba toog di waxtaan te Modou am na ay technicien xëy na nag ay nit bu ñuy ànd rek dana baax léeg-léeg nga ne ko soit est-ce que yaa ngi bàyyi xel ci lii yaa ngi bàyyi xel ci lee yaa ngi bàyyi xel ci lee yaa ngi bàyyi xel ci lee loolu rek mais Modou c'est boo xoolee ni mu nu mu daay ba mu toll guddul rëyul cent quelques kilos di të ay ponkal c'est parce que am na am na am na bagage. soo fàttewul image bi. Gris Bordeaux bi ma tuus gis nañ la nga koy dee nii ba soo ba taxal si loo loo ko doon dee. bon boobu dama gis ni bon làmb la nag làmb làmb moom dafay jàkk léeg-léeg gis ni mbër mi newtu fi dafay am mbër mi newtu fi dama ko dama ko sentir lu bari ci biir combat bi dama sentir lu bari ne daal Gris keroog sama gis-gis am na lu am na lu manqué daal am na lu manqué woon waaw. am na lu manqué. ko ba mu reetaan ko dee. lu manqué dama nit ñi yaa ngi fi. lan wala bés bi ñemetoo ko lan la gëdd ko gëdd ko mu ñëwaat bon lamb la quoi lamb nag li may wax rek lamb daal lamb daal làmb la lamb la. Mhm. combat fi mu fi mu jeexee est-ce que xaaroon ko foofu. waaw man man ma doon xaar nag komba bu komba bu 3 minutes yooyu laa yaakaaroon combat wax dëgg yàlla ñoom ñaar seen ay ñaari combat dama foogoon ay 3 minutes la mais bi ñu demee biir. ba ñu bëree ba mi-temps laa xam ne combat bi tey caaxaan du ko jeexal ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk danga xool li sa morom mën nga moytu ko ñoom ñaar ni nga gis ñëpp ku nekk danga nga li sa morom mën danga nga ko ko xañ waaw. stade bi ni ak ambiance tamit ak pay per pay bi nga xamante ne lig na ko laay jour boobu la ko andi Sénégal ak waa Buzz Pro. moom dama ne woon il faut ma toog foo xamante ne ñëpp dañuy toog moo ko ci muy Buzz Buzz bu Lutte TV Sénégal dañ ko war a delloo njukkal ndax wax dëgg yàlla làmb deewoon na presque xaw ma dee sax waaye ñu ko doon rob ñu ko doon denc gas nañ ba ko war denc bu wax nekk booy bu bës nekk booy bu ndaw am xalaat ak idée fi fii perpétué indi ko tey jii làmb mbër ak perpétué bi mbër mën na fayeeku 300 millions 400 millions tey jii jaratul ñuy daw ci yenn ginnaaw sponsor perpétué la ñuy jëlaat rek gën ko sécuriser mbër mën a fayeeku la ci àdduna moo tax bës daal xam nga li ñu koy ñaan gudd fan li mu bëgg ci télécom bi moo ko xam. yàlla may ko ci lu kawe njortam ndax li mu sauvé dafa bari de billaay li mu sauvé bu bu bës li mu sauvé kenn xamul lu mu toll. ba tax na bon soxla na nit ñi mel ni moom ñu am xel mu rafet xel mu yaatu vraiment mun daal bës daal wax dëgg yàlla ah <laughs> affaire am dina baax daal. nga daal pépère yu continuer dem. mooy am bu bës lu mu fi indi xam nga tamit lamb benn affaire mooy toujours li ma wax rek mooy nit ñi dañuy xalaat di innover mais bu dee Sénégal lamb yëpp. monde làmb yëpp seen gis-gis yi romb seen paxu bakkani du dem il fallait benn boy bu ndaw am idée dem am xalaat ñëw teg lu mel ni ñu bokk ci làmb ñëpp nañu ubbi seen bët yaatal seen xel di xalaat lu yokk làmb vraiment buzz mention spéciale. dernier kàddu bi daal. waaw sama kàddu bu njëkk mooy rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax yàlla jàmm yàgg fu jàmm am yàlla na gën a yokk ndox it maa ngi gërëm ñëpp gërëm écurie di gërëm tamit suma père bi moom. gërëm moom ak soxnaam ak waa këram moom am na fu mu commencé amul fu mu yem di gërëm Parcelles Assainies 1 ba 26. di gërëm champion bi mel ne ñoom Modou Yékini Junior ñoom ñëpp maa ngi gërëm ñëpp Parcelles Assainies 1 ba 26. di gërëm tamit monsieur le maire Moussa Sy euh, di wax Amadou Ba monsieur le ministre des finances merci jërëjëf gis taxawaay bi ak ay frères ku mel ne Abbas Ba. ku mel ne Nazaire ku mel ne Seydou ak ki nga xam ne mooy doomu ndey ministre bi di Babacar ñu koy gërëm bu baax ñu koy sant ci seen taxawaayam di gërëm les jeunes politiciens yi nekk parcelles yëpp di Badou Diouf Mamadou Ly ah tuuti Ndiaye bu doomu mbay Ndiaye ak monsieur monsieur le ministre mbay Ndiaye monsieur le ministre Mbaye Ndiaye ñi ngi gërëm rek képp koo xam ne kilifa nga nekk parcelle te tudduma la sax ah ah baay baay biram wax nga dëgg de boo gërëmee boo gërëmee gërëm baa biram rek gërëm nga parcelle yëpp écrit nekk parcelle yëpp gis naa seen taxawaay ci combat bi gis naa seen yéene ci combat bi gis naa lépp mais xëy na yàllaay dogal man am ndam te yaa bëggoon mu demee noonu bëggoon sax lu mënti xewit daal bëggoon nañ daal lépp loolu daal bëggoon nañ lépp loolu mais nag xëy na loolu la yàlla dogal te it di xam ne daal bon aw ma seen aw ma seen fay sant naa ñëpp gërëm ñëpp di gërëm nag sama grand frère bi nga xamante ni tey ji mooy Oscar di gërëm soxnaam yi di gërëm njaboot yëpp xam ne boo amee combat mu bay bàyyi këram bàyyi léppam nekk ci yow aw ma fayam os maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay gërëm bu baax a baax ak Abou Gueye Chéri maa ngi lay sant bu baax a baax a baax Chéri Thiané Faye jili ñang moom aw ma fayam grand jili vraiment ñang baalo yaw dundal quoi jërëjëf kontaan